waaw c'était un match costaud match difficile l'importance a été fait mooy remporter tournoi bi vu ko ki ñu ko doon defal si équipe bi la nekkoon te aussi tamit à domicile lañ ko doon joué waaw loolu la woon quoi en fait mooy gagné ko. Mhm. waaw waaw comme comme comme match yi commencé gul te ñu ngi woon si préparation euh, affaire yi dina xaw a métti tuuti avant cohésion di am si groupe bi vu ko boo xoolee groupe bi groupe bu bu bees la. am na ay pas mal joueurs yu dem am yu bees yu ñëw balaa affaire bi di jàppan dina métti mais avec match yi di ñëw dina dina dina dina soudéw quoi. waaw objectif bi moom lenn kese la jéem a jéem a jël dara li ñëpp di xëccoo ñu ñu gis suñu bopp muy championnat bi wala coupe loolu daal mooy objectif bi. waaw loolu moom loolu moom yàgg na yàgg na Pikine quoi supporters yi moom dañoo dañoo dañoo bëgg équipe bi te loolu aussi tamit fierté la su su ñun tous les jours bu ñuy jouer fii suñu stade. supporters yi ñëw suñu ginnaaw doole ñu beneen motivation la quoi en fait ñu ngi ciy rafetlu bu baax a baax di leen ñaax ñu gën a ñëw pousser équipe bi vers l'avant ñu ñu ñu atteindre suñu objectif ñun ñëpp.